jërë ngeen jëf mbokki internet yi seen kàddu sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun xibaaru digg bëccëg yi dañu koy door ak tolluwaay mbas mi tey ci talaata ji yemoo ko benn fan ci weeru février résultat mbas mi nii la tëddee leeral li ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyi ko ministère la santé et de l' sociale tey bésu su talaata benn fan ci weeru février biñ nekk ministère la santé et de sociale. jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak fanweer ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci positif positif yooyu seen lim nii la tëddee am nañ ci juróom-benn cas contact ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn ka importé maanaam bu jógee bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu jas am nañ ci tamit fanweer ak ñaar. yiñ tuddee communautaire ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee am nañ ci ci nda seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom fukk ak juróom yooyu yooyu ñu leen fekk ci département bu ndakaaru bu rifisk ak bu Pikine ci yeneen région yi am nañ fa fukk ak juróom-ñaari cas communautaire te seen lim ñoom tamit ñu ngi tëddee nii ci région yi ñu leen fekk ci région bu maatam région bu Thiès bu soor région bu Kaolack bu Kolda bu Fatick ak bu Tambacounda toujours ci bilan tey bi ñu xamal leen ne que ñett téeméer ak benn si ay malade ñi nga xam ne ñenn ñi dañoo entré woon ñeneen ñi ñu ngi leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation ñetti malade génn àdduna bu su démb altine fanweeri fan ak benn ci weeru janvier mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan Euh, bu loolu jàllee ñu wax leneen lu ñeel xibaar yi pa direction publique des relations ak armée euh, ñoo daal di fësal li mu soldats yi nga xam ne ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci jàppante yi amoon euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ci diggante armée bu Sénégal ak MFDC li mu soldats yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan la ñu daal di xamle ci ay xibaar ni ñeenti soldats sénégalais ak juróom-ñaari soldats yoo xam ne jamono ji dañoo nekk otage nekk ci loxo waa MFDC. Euh, bu loolu jàllee ñu wax leneen lu ñeel xibaar yi ci li nga xam ni moo ñeel njàng mi ak njàngale mi euh, kisem sa jamono ji sax ñu ngi ci seen septième plan d'action ñu gis ni que sax jàng mi jamono ji dafa sooxe loolu ak li nga xam ni mooy crise bi ñu nemmeeku euh, ci jàng mi ak gàllankoor yi nga xam ni moo ci am naka noonu sax directeur communication bu ñu xam ni moom lañ dénk wàllum njàng mi te féete ci fi nga xam ni mooy état bu Sénégal di Moustapha Diagne moom kat mi ngi ñaax syndicat yi ngir ñu toog daal daal di am waxtaan seen biir euh, bu ko defee ñu daal di xool naka la ñuy def ba trouver solution euh, ci crise bi nga xam ne jamono ji école yi Sénégal yi moom lañ nekkee naka noonu sax euh, moom mi ngi ñaawlu li nga xam ne mooy septième plan d'action grève yi ci système éducatif yi ak li nga xam ne regret yi ci am mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñu wax ci li nga xam ne mooy trafic faux passeport diplomatique ginnaaw Amadou Sall député bi di bi Biaye yi jamono ji sax mën nañoo jàpp ni dañu ko téye ginnaaw bi nga xam xam ne juge bi di Mamadou Seck mi fi uutu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Assane Thiam euh, di deuxième cabinet euh, Abdoulaye Assane Thiam si deuxième cabinet daal dina koy yóbbu euh, démb la fanaan guddeem gu njëkk ca kaso moom sax dañ ko doon toppee li nga xam ne moo doxoon ci coow li nga xam ne moo ñeeloo li xam ne mooy trafic faux passeport diplomatique du ñàkk ni dañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar bu loolu jàllee ñu wax ci élection législative yi nga xam ne moom lañu génn jamono ji coalition wàllu Sénégal ñu doon amal conférence de presse fële ci chaise bu PDS la waral ndaje momu sax coalition wàllu Sénégal dafa bëgg opposition bi ngir ñu daldi di and ànd doon benn bu ko défé ñu mëna liggé jëm ci élection yi nga xamné moy mooy fu ndaw réew mi xibaaru tagat yaram lañuy dem ñu daldi di wax ci li nga xamné moy CAN Cameroun 2021 ñu wax ci point Covid 19 bi ci tanière lion yu Sénégal ci ab communiqué bu fédération Sénégal sénégalaise daal di fësal euh, ñu ngi xam le ni sax test yi nga xam ne daal dinañ ko def ci euh, lion yu Sénégal yi euh, la ñu ca jàpp mooy ñoom ñëpp dañoo négatif maanaam jamono ji kenn amu ci li nga xam ne mooy jàngoro yu Covid 19. ba tey ci xibaaru tàggat yaram la ñuy desandi ak CAN Cameroun 2021 ginnaaw équipe nationale bu Sénégal amee ndam ci match quart de finale bi mu doon am ci kaw ki nga xam ne mooy équipe bu Guinée équatoriale ba gañe woon ci 3 suba sax ci àllarba ji yemoo ko ñetti fan ci weeru février équipe nationale bu Sénégal dina jàkkaarloo demi-finale ak ñi nga xam ne ñooy les étalons euh, du Burkina Faso mu nekk match bi nga xam ne moo war a am suba 19h mbokk yi li lañ leen fi indiloon euh, ci xibaaru digg bëccëg yi sant leen gërëm leen di leen ñaanal kenn lu jaam